ki nga naan violeur. dafa complot ak ab gendarme di di di lan foofu da ko xaw a cof rek mais lan la exactement la wax foofu. mais amul cof yàgg nañ ko wax ñun ñu ñoo bëgg te dégg wala ñoo bëggul dégg. lan la exactement xam nga Adji Sarr mënta porter plainte altine ci méngóo boo jëlee date àllar altine ci guddi euh, mënul ñu wax ko ci wolof ci france mu gën a leer. Mhm. maanaam Adji Sarr porté plainte lundi mardi gendarme ba mu porté plainte di envoyante ak woowante ak Ousmane Sonko ca convoqué guñ ko mais loolu bu dul complot gisuma leneen lu dul complot. kan ngay wax ni mais capitaine bi ñu rajee barki démb. mais capitaine boobu la kay. il a changé les textos ak Ousmane Sonko. lendemain convocation bi. ma ne jokkoon ak Ousmane Sonko du benn du ñaar du ñett. ci loo xam ne du enquête bi. doo xam ne du enquête bi te boobu convoqué guñ ko loolu bu dul complot lan mooy complot. loolu bu dul bi euh, situation bi jeexee émeute jeexee ñu gis ni ko fukki nit ak ñeent ñoo ci gaañu juróomi nit yi lañ mën a wax ni que li fat faat seen bakkan laale na ak police juróom-ñeent yi yëpp mën nañ jàpp ni que ay meurtre la. ñu gis ko moom ci boppam muy dem ci ñenn ñi yenn famille naan leen dama leen jox xaalis pour ngeen ni état du Sénégal loolu bu dul complot lan mooy complot. après ñu bëgg a tànqal ñi ñi naan ay M2D M3D M5D organisation la buy défendre un violeur. donc par rapport ak. proximité euh, kenn du ko ak M23. proximité bi Ousmane Sonko am ak gendarme boobu noonu euh, dafay justifier ci sa gis-gis euh, ce qui s'est passé par la suite. mais foofu mooy complot bi la. mais c'est-à-dire yow man mënu ma nekk yow munoo nekk enquêteur nit ñëw porté ma plainte man ma jaar ci suuf di la wax di la envoyé message di la woo ñuy wax. te convoqué guñ la ma lay wax li lii di am. donc capitaine Touré ci sa gis-gis ab plaie la woon bu ñu waroon na. dindi eh, sànni fële gendarmerie mais c'est que c'est-à-dire mais defe naa li ko gendarmerie daan ko gendarmerie teg sax. oyof na oyof na par rapport ak li mu def. parce que jàpp naa ni ñoom complot bi ñu nas naan nii dañ ma complot ñoom ñoo njëkk a complot ba ay nit génn ci àdduna. ci lan ci pour ragg deru koo xam ni moom moo fekk xale bu jigéen fa liggéeyee sàkk ko ci lu dul coobareem ba pare bëgg ëpp nit ñi bari wax ba pare am surtout continuer di wax naan day défendre démocratie. Ah, naan vous semblez parler avec beaucoup de certitude dans cette affaire est-ce que da ngeen ci xam lu ñu ci xamul ñun ñi Ousmane Sonko xam nga wax fii laa toogoon. Mhm. bu nee moom woowul Touré ci avant ñu koy convoqué inventé wuñ ay SMS. bu ko fekkee ni que loolu muy wax li ma wax ni amul na dem tribunal bu leen indilee yéen citation direct nga ñëw ma jox la firnde bi. pour détenir les preuves. ma ni déedéet li may wax bu fekkee du dëgg. moom yow boo ñëwee. Mhm. suba na na yónnee citation directe mu def ci sama tur ak seen tur boo ñu ngeen ñëwee man ma jox leen preuve maa ko wax ci kanamu sénégalais man du ma wax lu dul dañ du ma wax loo xam ni wóoruma ma ni mënuñoo jël m d mhm. buy défendre un di ko méngale ak M23. Ah, est-ce que nekkul leen di juum tamit Mame Mbaye juum